asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax tey jiital ci nuyoo boobu ak siyaare bi suñu kilifa gi nga xam ne moo fi teewal cheikh Mouhamadou Mountakha moom cheikh Mouhamadou Bachir di jëwriñu murid yëpp ne ci dëkk bi di jëwriñ Baye Ousmane ñu ngi koy jiital ci nuyoo boobu yi di di ci teg Baye Balla Diouf mi nga xam ne mooy jëwriñu. mbokki taale bi nga xam ne ñoo féete Touba Kër Yakham di nuyu ak a ziar mboolem kilifa yi fi teew yëpp te di leen bal wax bala ñoo wax dara ñu ngi ñaanal al imam Oustaz Adama Sarr suñu borom dolli ko yërëm te dal ko jéggal ñaan suñu borom mboolem lu mu liggéeyoon ci kaw suuf rek tee ba yàlla na wii di ko fekk ba faw te ñu yàgg ci ginnaawam yàgg ko ñaanal mbokk jullit yi tay bis bu mag la bis bu kawé ñi ngi ci sant yalla bu baaxa baaxa baax ci tawfiixal gim mu def bañu ñu fekkewaat ko ci uh, at mi ñaan suñu borom ñu yàgg koo ñi ngi ñaané wéru tedd wi ñu bayiko ko suñu borom nangul ñu lepp te gëreemal ñuko mbolam mboolem ñu ci doon yëngutu ci xéeti jaamu yalla yalla ngi suñu borom nangul te gëreemal ñuko bis bi bisub sant la bis la boo xam ni bisu feet la ni ñu ko xame bis la boo xam ni bisu lekk bisu naan la waaye bisu sant yàlla la ngir teraay nga yi nga xam ne suñu borom defal na ko ci xeetu sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñu ngi leen ci soññ bu baax a baax ci dundal ko ak fonk ko di leen ci fàttali lépp loo xam ne warteef la rawatina uh, zakatul fitri yi nga xam ni muy muur koor yi nga xam ni warteef la joo xam ni ku baax ka moo ko farataal ci jullit ñëpp képp koo xam ne génne génne goo boo demee rek nga daal di koy génne incha allah rabbi ñu ngi leen di jégalu di ginnaaw bi ñu defee xutba bi ci longatul arabiya muy làkku arab ñu fàttalante rek ngir ne ko suñu borom digalee yonente bi alayhi salaam wa zakir fa inna dikra tanfaul muminin na ngay fàttalee ndax fàttalikat dana jariñ aji gëm ji te ku baax ka alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ni ak diinu nasiha xul naa liman xaala lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li a'immati lmuslimina wa ammatihim yonente bi dafa waxoon ni diine laabiré la ñu ni ko kan la ñuy laabiré mu ni yàlla akub yonenteem akub téeréem ak njiitu jullit ñi ak mboolem jullit ñëpp boroom xam-xam yi dañuy wax ni laabiré yàlla mooy nga gëm ko bañ ko bokkale dara topp ko di ko jaamu laabiré alxuraan mooy nga jàng ko xam li ci ne teg sa tànk te bañ koo moy laa biire yonente bi mooy li njub gi nga kan, xamni mom la indi suñu borom yónni ko bu ñe nga deggal ko te topp ko kem nang ko jàngale laa biire njiiti diine njiit njiiti diine yi suñu borom waxe tan nang koy laa biire moy nga top ci ginnawam lepp lo xamni ak defar la nga diko wax kem namu yella niko li ak defar la lo xamni ak yak la nga diko wax kem namu yella niko li ak yak la nan la ñuy laa biiree mbokk eh, jullit day teunku ci li nga xamni mom la suñu bi rek ci njalbe bi ju xadal xaj muy ki nga xam ni eh, daf laa mag na nga ko jàppee ni sa wayjur kii nga xam ni yaa ko mag nga jàppee jàppee ko ko ni sa doom ki nga xam ni da ngeen a nga jàppee ko ni sa bopp ndax ki nga xam ni dalaa mag nga jàppee boo ko jàppee ni sa baay moom dana la jàppee ni doomam ki nga xam ni yaa ko mag boo ko jàppee ni sa doom moom dana la jàppee ni baayam ki nga xam ni yéen a maase boo ko jàppee ni sa bopp dana la def ni boppam te loolu bu ci ñëpp tënkoo rek maanaam dund gi dana jaar yoon mbokk jullit nañu xam ni li ñu li ñu fi dajale mbir la moo xam ni mu màggale ci lislaam waaye nag suñu kilifa ci lislaam di Cheikhuna Ahmadou Bamba te mooy ki nga xam ni moo waral daje bii ginnaaw bi lislaam jiitoo al murid ya dafa ñëw doon loo xam ni dara génnul lislaam sëriñ bi amul lenn lennam lu génn lislaam kon tey jii bu ñu dajee ci këram ji nga xam ni waxna ni wajaal buyuti kullaha masajida ya nafiyan man la yakunu sajida ya sama borom na nga def sama kër yëpp di jakka ya mi nga xamni ya ma dakal ku nangu ta su jot buñu fi dajé war nañu bu baax baax ci l'islam waye nak ta jaar ko ci jangalim seigne touba ndax moy li nga xamni ni gëna yé ci ñun mo gëna a ci ñun mbokk yi buñu ñu ci majmaa bi nga xamni Cheikh Abdoul Ahad moo ñu dajale ko nga xamni waxi sëriñ bi ak yi ndénkaaneem yu baree bari yi ña ca dañ ci indi ndénkaane boo xam ne sëriñ bi da koo defoon mu jëm ci mbooleem ñi nga xam ni ñoo ko topp mu doon lu mat a déglu sëriñ bi dafa ne aoudu billahi min asheytaan rajim wa min suui nafsi wa min idlalil hawa wa min ixwaai sheytaani wa min xururi dunia maa ngi muslu ci yàlla musal ma ci seytaane seytaane mi nga xam ne suñu borom da koo dàq ci yërmandeem waaye maa ngi mus muslu ci suñu borom mu musal ma ci ñaawal bakkan ndax bakkan day ña mën a ñaawal ay mbir inna nafsa la amaaratun bi suu la alxuraan wax maam bakkan du ñaaw rek lay digle waaye maa ngi niki noonu maa ngi muslu ci réerale gi nga xam ne bakkan dana ko réerale ndax suñu borom moo ne wala tattabi hawa fa yudillaka an sabilillah bu leen topp bànneex mukk ndax da leen riiral ci yoonu yàlla ñu ngi noonu sëriñ bi nii maa ngi muslu ci suñu borom mu musal ma ci beewloo gi nga xam ne seytaane da koy beewloo ndax seytaane mbiram mooy beewloo ndax ba suñu borom dàqee dañu ko fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in waat naa sa màgg di ñoom ñëpp dinaa leen kon sëriñ bi nii maa ngi muslu ci beewloo gi nga xam ni moom la seytaane beewloo waaye maa ngi muslu ci ware gi nga xam ne àdduna da koy da koy ware alxuraan wax na ne wala taxarrukum xayaat dunya wala taxarrukum billahi alxarur bu leen ad dund addu gi mukk war mukk kon àdduna li mbiram mooy ware sëriñ bi nag maa ngi muslu ci yooyu ñeent yooyu nga xam ne ñooy nooni doomu aadama maa ngi muslu ci ñoom daani bismillahi rahmaani rahim wa qad aazani llahu tabaraka wa taala min suui nafsi wa min idlalil hawa wa min ixwaai sheytaani wa min